jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu uh, Q radio ñu rek dalal leen si seen jotaay bu mag bi di jotaayu xibaar yi ñu fesal li nga xam ne moo di boppi xibaar yi. njiiti réew bu Gambie président Adama Barrow ak njiiti réew bu Sénégal président Macky Sall ñoom nag keroog talaata gën nañoo fisal seen nag daal ab taxawaay pour daal gën a lëkkaloo li nga xam ne moo di diggante ñaari réew yi mu nekk réewu Gambie ak réewum li nga xam ne moo di rek daal Sénégal dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moo di rek daal xibaar yi. ki ñu xamee si Fatoumata Diakhoumpa Cissé yore nombal tànk bi ñu xamee si Gambie High Commissioner to Zambia maanaam moom moo toogal réewum Zambia foofu si réewum réewum Gambia kon si réewum li nga xam ne moom rek daal Zambia moom rek daal teewal na kayit yi nga xam ne mooy mandargal ne moom mooy toogal réewum Gambia foofu si réewum li nga xam ne moom rek daal Zambia teg na ko si rek loxoy président bu rek daal Zambia dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moom rek daal euh, xibaar yi pour rek euh, taxawu seen i ay euh, liggéeykat banqaas si takk der bi ñu xamee si Gambia Immigration euh, Department daal dinañ nag jébbale ñaar si nag daal ay boosis maanaam ñaari oto yu mag yoo xam ne jébbal nañ ko seeni ay liggéeykat pour rek daal yombalal leen seen i nag daal dem ak dikka dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yi ak yeneen gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal àllarba la ñaari fan yi si weeru august atum 2023 di atum ñaari junne yi ñaar fukk yi ak ñetta ñu indi leen seen jotaay bu mag bii di rek daal jotaayu xibaar yi ñu rek yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar yi président bu Gambia di président Adama Barrow ak président bu réewum Sénégal di président Macky ñoom nag daal fisal nañ seen nag daal ab taxawaay pour daal gën a lëkkale eh, li li nga xam ne moo di rek daal ñaari réew yi mu di rek réewum Gambia ak réewum eh, eh, li nga xam ne moo di rek daal seen nag daal taxawaay bi nag ñu ko wane keroog li nga xam ne moo rek daal talaata si rek daal ñeteelu ndaje boo xam ne daal li nga xam ne moo di mbootaay bi nga xam ne réewum Gambia ak réewum Sénégal nag daal ñoo bokk daal di sos li nga xam ne moo rek daal mbootaay daal di ko duppee euh, Sénégalo Gambia Presidential Council meeting bi nag mooy ñetteelu yoon euh, li nga xam ne moo di mbootaay bi dina daal amal li nga xam ne moo di rek daal euh, ndaje boo xam ne diggante ñaari réew yi nag lañ fay waxtaanee li nga xam ne moo di rek daal ñetteelu mi keroog nag talaata wala ni ki démb si rek daal talaata gi lañ ko nag daal di amal si rek penc miñ xamee si Saadawda Kairaba Jawara International Conference Centre nekk foofu si diwaanu li xam ne moo di daal bijilo li xam ne moo di daal ndaje mi nga xam ne mooy ndaje mbootaay biñ xamee si Sénégal Gambia euh, Presidential euh, Council ab ndaje la boo xam ne sax daal wala ñetteelu li nga xam ne moo di daal ndaje mi mu ngi nag tàmbali woon keroog lundi gannaaw bi nga ne nga xam ne daal ñoo di rek daal ministre si wala jëwri ñi nga xam ne ñoo jógee ko si réewum Gambie ak réewum Sénégal nag daal ñoom nag ñoo njëkk amal li nga xam ne moo di rek daal seeni nag daal ab nag daal ndaje keroog lundi waaye nag daal niki démb si rek daal talaata gi si suba la président bu réewum Sénégal Macky Sall moom mi nag daal yegg si fii si biir réewum li nga xam ne moo di rek daal Gambia euh, pour rek daal teewee li nga xam ne moo di ndaje li nga xam ne moo di mbootaay bi ñu xamee Sénégal Gambie Presidential Council meeting li nga xam ne nag moo di président Macky Sall keroog talaata juróom ñeneenti waxtu si suba nag daal la yegg si fii si biir réew mi ki nga xam ne moo di naataangoom di président Adama Barrow moo ko daal di uh, dalal bi nga xamee nag daal dalal na ko ñoom ñaari njiitu réew yi nag daal ñoom nag daal képp nag daal ñoo njëkk a toog daal di amal nag seeni nag daal ab waxtaan seeni nag diggante moo di daal euh, mbooloo mi àggali li nga xam ne daal moo di rek daal euh, waxtaan bokk na si li nga xam ne moo di nag daal ñaari kilifa yi li nga xam ne moom lañ nag daal njëkk a si rek daal ndaje mi wan nañ ne daal li nga xam ne moo di rek daal ñaareelu ndaje bi nga xam ne Sénégal Gambia ak amaloon nañ ko am na daal ay nag daal nangutoo yoo xam ne daal amaloon nañ ko si rek daal ñaareelu ndaje mi te nag daal li nga xam ne moo di nangutoo boobu daal daanaka lu ëpp si rek daal nangutoo yooyu nag daal am daal dinañ ko nag daal di jëmal ñoom ñaari kilifa yi nag daal loolu nag daal war nañ si daal seeni nag daal ab mbégte ak li nga xam ne moo di rek daal kontante li nga xam ne moo di ñetteelu ndaje bi nga xam ne moom lañ amal keroog daal talaata am na lu toll si rek daal juróom ñaari nangutoo yoo xam ne ñaari réew yi nag daal nangutoo nañ ko mu di réewu Gambie ak réewum li nga xam ne moo di rek daal Sénégal bokk na si rek daal eh, juróom ñaari nangotoo yooyu bokk na si nag lu aju si wàllu security and trade maanaam wàllu karange ak wàllu li nga xam ne moo di rek daal yaxantu gi di rek waa wàllu jënd ak jaay gi bokk si daal uh, li nga xam ne moo di nangutoo yoo xam ne uh, daal dinañ ko nag nangutoo si li nga xam ne moo di ndaje mu mujj bi nga xam ne amal nañ ko keroog li nga xam ne moo di rek uh, talaata ñoom ñaari njiiti réew yi président Sall ak président Barrow daal di nag daal wane li nga xam ne di daal mbégte si nag li nga xam ne moo di daal nangutoo yi nga xam ne njëkkoon nañ ko amal euh, jëmal bi nga xam ne moom lañ ko jëmal nag daal loolu nag wane nañ si nag li nga xam ne moo di daal seen i ak mbégte nag ak li nga xam ne moo di kontante waaye nag terewul nag daal ñu ngi sàkku tamit seen i ay jëwrin ñu gën a baral seen nag loxo si nag yeneen si ay nangutoo yoo xam ne nag daal ba léegi nag daal euh, jëmalaguñ ko euh, wala sax daal des na pour rek daal ñu daal di ko jëmal bokk na si nag daal lu aju si wàllu nag daal diggante ñaari réew yi seen i nag daal ay kaaraange ñi nag lëkkaloo nag daal di des daal ab seeni i ab liggéey loolu nag daal bugga nañ nag daal mu doon loo xam ne lu ñu nag daal jëmal la bem nag daal di mat lu aju si wàllu jënd ak jaay gi euh, fexe tamit li nga xam ne moo di jënd jaay gi euh, pour rek daal di jàllale si rek ñaari réew yi mu doon loo xam ne tamit lu ñu nag yombal la si diggante li nga xam ne euh, moo di daal ñaari li nga xam ne moo di rek daal réew yi ñi nga xam ne rek daal ñoo di daal ñaari li nga xam ne moo di daal njiiti réew yi bi nga xam ne daal yéen a njàbbi si rek daal ndaje mi ki nga xam ne moo di njiiti réew bu Gambia si rek daal wone daal mbégteem ak kontaanteem ak delloo njukkal ki nga xam ne moo di naat naataangoom di président Macky Sall moom président Barrow nag daal daal dina jël li nga xam ne moo di ab raaya bu nag gën a kowe wala daal bokk na si raaya yi gën a kowe si biir li nga xam ne moo di daal réew mi daal di kon tappal ki nga xam ne moo di président bu réewum Sénégal di rek daal Macky Sall pour rek daal delloo ko njukkal si nag taxaw bi nga xam ne président Macky Sall euh, daal dina ko taxaw li nga xam ne moo di daal réewu Gambia moo xam si biir réew mi moo xam si nag daal li nga xam ne moo di daal si nag daal yeneen si nag daal ay réew wala daal yeneen si li nga xam ne moo di ay mbootaay mu ne daal euh, taxaw bi nga xam ne président Macky Sall nag taxaw na ko réewu Gambia lu waral moom njiitu réew mi daal tappal ko li nga xam ne euh, li nga xam ne moo di médaal boo xam ne daal bokk bokk si médaille yi gën a kawe euh, fii si biir li nga xam ne euh, moo rek daal euh, réew mi gannaaw gi nag daal li nga xam ne daal moo di ministre wala jëwri ñi nga xam ne ñoom nag daal ñoom lañ dénk ko wàllu biti réew mu réer daal ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu biti réew si réewu Gambia ak ki ñu dénk wàllu biti nga xam ne moo di i nag daal yëkkati nañ li nga xam ne moo di rek daal kaddu euh, tënk li nga xam ne moo di nangutoo yi nga xam ne moom lañ nag daal mujjee nangutoo si rek daal ndajee nag daal gu mujj gi kiñ xamee si Momodou Tangara nga xam ne moom moo togal re moom nag mooy ministre wala jëwriñ ñi nga xam ne nag daal moom lañ dénk wàllu biti réew yëkkati na fa daal kaddu nag daal réewu Gambia ak réewum li nga xam ne moo di Sénégal ay nag dëkkandoor nag daal yu nag daal euh, jege lañ bokka li nga xam ne moo rek daal taarix bokk bokk li nga xam ne moo di aada ak li nga xam ne moo di rek daal cosaan rek daal ñaari réew yi seen nag daal xarito wala daal seen nag daal bennoo du nag daal tey ay at nag daal yu nag yàgga la bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di rek daal ay kàddoom wax na ne li nga xam ne moo di ñaari réew yi nag yàgg nañoo lëkkaloo si rek wàllum li nga xam ne moo di karange ak wàllum li nga xam ne moo di rek jënd ak jaay wax na sax li nga xam ne moo di mbootaay bu mel ni biñ xamee si Sénégalu Gambia kansul nag daal mun nañoo wax ne daal am na daal am nag mbootaay boo xam ne moo nag njëkk a jiitu boo xam ne taxawaloon nañ ko si rek daal 1981 waaye nag daal euh, gannaaw gi li nga xam ne moo rek daal euh, beneen mbootaay lañ taxawal tuddee ko Sénégalu Gambia permanent euh, secrétariat nga xam ne jamono ji boobu nag daal mooy nag amal li nga xam ne moo di ay ndaje bi nag mooy ñetteelu ndaje boo xam ne ñu ngi koy nag daal di amal xam nañ ne li nga xam ne moo di rek daal ñeneen teelu ndaje mi nag daal réewum nag daal Sénégal lañ koy nag daal di amal tànnaguñ nag daal kañ lañ koy nag daal amal foofu waaye nag daal ñeneen nag daal ndaje li nga xam ne moo di mbootaay bi di Sénégal Gambie kantul foofu si réewum senegal Dakar fa lañ koy nag daal di eh, amale ñu wéyandi si beneen xibaar ki ñu xamee si faatumata Diakhoumpa Cissé yore nombal tànk bi ñu xamee si Gambes High Commissioner to eh, Zambia maanaam moom nag lañ yebal pour rek mu toogal réewum Gambia foofu si réewum mi nga xam ne moo di daal Zambia teewal na ay këyit yi nag mandargal ne eh, réewum Gambie nag daal ñoo ko yebal pour rek daal mu toogal leen foofu si réewum li nga xam ne moo di Zambia li nga xam ne moo di këyit yooyu nag daal wala bataaxal googu eh, teg na ko si rek ki nga xam ne moo di président eh, bu réewum li nga xam ne moo di rek daal Zambia bi nga xamee ne daal moom jot na bataaxal yooyu moom président bu réewum li nga xam ne moo di rek daal Zambia si nag daal seen dëkk bi ñu xamee si rek daal Lusaka moom président bu réewum li nga xam ne moo di rek daal Zambia daal dina nag dalal bu baax a baax madame Diakhoumpa Cissé si li nga xam ne moo di li nga xam ne ko bisimila ne ko nag dalalaat jàmm fexeel nag fiixal sa boppa fexeel nag daal lépp loo xam ne bëgg nga koo xam si biir réew mi moo xam aada ak cosaan bu réew mi nag daal fexeel yow madame Jaxumpa nga nag daal fexe daal di xam li nga xam ne moo di aada ak cosaanu réew mi ak leneen loo xam ne daal bëgg nga koo xam si biir réew mi moom président bu rak daal Zambie daal dalal bu baax a ki nga xam ne moo di Fatoumata Jaxumpa Cissé moom président bu réewum Zambie sax daal dina wane réewum Gambie ak réewum Zambie daanaka daal benn réew la rek daal li xam ne mooy firndeel ne benn réew la muy daal ñaari tuuri réew yi daanaka daal dañ nuroo Gambia ak Zambia mu ne loolu sax daal mooy wone ne daal ñaari réew yi nag daal benn lañ bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddoom moom président bu réewum Zambia moom nag daal dina wone nag daal réewum Gambia ak réewum Zambia war nañoo gën a nag daal dëgëral si nag daal jokkoo surtout nag si wàllu li nga xam ne moo di rek daal koom-koom ne daal loolu luñ war a nag daal di gën a saxal la wax na daal euh, naam dañuy wax ne réewum Zambia daal dañ war a daal di euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu war lëkkaloo mooy réew yi leen gën a jege bokk na si réewum Angola Uganda Rwanda waaye nag wax na ne li war a am réew yi nga xam ne ñoo nekk si Afrique sow jant yépp nag daal ñoo war daal di lëkkaloo gannaaw bi nga xam ne daal wax na ne Afrique wala suufi Afrique daal benn réew nag daal soriwut sa morom bu ñu sukkandeko rek si kàddu yi moom président bu réewum li nga xam ne moo di Zambia moom sax wax na ne li nga xam ne moo di mébétam mooy nag daal bëgg naa gis li nga xam ne moo di ay plane di nag jaabante diggante Banjul euh, jàpp fi ñu xamee si rek li nga xam ne moo di lu Lusaka mu ne daal loolu nag daal ab bëgg bëggaam la bu ñu sukkandiku si ay kàddu waaye nag wax na ne lii yëpp nag daal du mun a am feek nag jàmm ak dal euh, amut mu ne daal loolu bu nekkee nag daal amut mu di euh, ak daal kaaraange bu amul nag daal li yëpp nag daal du mun am te daal wax na ne faaw nag daal jàmm ak kaaraange nag daal ñu fexe saxal ko si suufi li nga xam ne moo di rek daal Afrique sow janta moom président bu rek daal réewum li nga xam ne moo di daal Zambia moom nag daal dina wax ne daal li nga xam ne daal moo di daal bëgg a am sax mooy fexe tamit gi nag daal di jaabante si diggante réewum Gambie ak réewum nga xam ne moo di Zambia lu mu nag daal bugg la di nag daal wolu tamit ki nga xam ne moo di naataangoom moom it nag daal bu nemmeeku ji réewum li nga xam ne moo rek daal Zambie moom it nag daal bi moo nag daal di yëkkati kaddu moom ki nga xam ne moo di Fatoumata Diakhoumpa Cissé moom nag daal dina wax li nga xam ne moo di la yoo xam ne daal yàgg nañoo nag daal xaritoo te nag daal seen xaritoo xaritoo nag daal bu ratax la bu ñu nga xam ne moo na ne ñaari réew yi yëpp nag daal am na loo xam ne njëriñoo nañ ko si li nga xam ne moo di xaritoo bi nga xam ne xaritoo nañ ko bokk na sax si lu nag daal njànga gannaaw bi nga xam ne daal wax ne ñu nag nag xam ne ñu ngee daal yore ay ndombal tànk si réewum li nga xam ne moo di daal Gambia euh, daanaka daal ñaareel ñu ngi nag sàkkoo xam-xam foofu si réewum li nga xam ne moo di daal euh, Zambia surtout sax daal tamit ñi nga xam ne daal ñoo yëngu si rek wàllum yoon ak yoonal foofu si réewum Zambia daanaka tamit ñoom it dinañ leen di indi fii si biir réew ñi nag daal amal liggéeyu mbirum yoon ak li nga xam ne moo di yoonal di rek daal loolu ñu xamee si rek daal judiciaire yi moom Fatoumata Diakhoumpa Cissé nag daal wax na ne amoon nag daal benn jiixi jaaxane daal li nga xam ne moo di daal ñaari kilifa réew yi nag daal dinañ nag daal gën a jokkoo bu rek daal daal di rataxal diggante ñaari réew yi seen nag daal li nga xam ne moo di rek daal xaritoo su ko defee nag daal ñi nag daal jàppalante nag daal si nag yenn si li nga xam ne moo di rek daal ay bunta moom ki nga xam ne moo di Fatoumata Diakhoumpa Cissé daal dina tamit gërëm bu baax a baax président bu réewum Zambia si nag dalal bi nga xam ne euh, dalal na ko nag daal ubbil ko li nga xam ne mu di ay buntam nag daal loolu nag daal lu mu nag daal rafetlu la bu baax a baax ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar euh, pour rek daal di taxaw seen i ay liggéeykat banqaas si takkader bi ñu xamee si Gambia Immigration Department daal dinañ jël ñaar si li nga xam ne moo di ay bossis maanaam ñaar ci ay oto yu mag yoo xam ne jébbal nañ ko seeni i ay liggéeykat euh, pour rek daal di leen yombalal seen nag daal demaka ak nag daal euh, dikka lii nag daal ab mbir la moo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi euh, daal dinañ ko def gannaaw bi nga xamee ne ñaar si nag boosis yooyu wala ñaari oto yu yooyu li nga xam ne moom lañ ko jëndee daal dina toll si fukk ak ñetti million si koppari li nga xam ne moo rek daal dala si gannaaw bi nga xamee ne dañ leen ko jagleel ñoom liggéeykat yi pour daal yombala leen si nag daal dem ak dikk boos bu nekk nag daal dina jël lu toll si rek daal juróom benn fukki ay nit yoo xam ne euh, boos bu si nekk nag dina ko nag daal jël si li nga xam ne moo rek daal ay nit si rek ndaje bi nga xam ne ñu ngi jébbale boos yooyu ki xamee si si Singate nga xam ne moo yore na bi nga xam ne ñoom dañoo yëngu si rek wàllum jaayam oto moom nag daal dina li nga xam ne moo di kóolute bi nga xam ne Gambia Immigration Department am nañ ko si rek daal compagnie bi euh, jëndee fa li nga xam ne moo di ak seen oto yi ko li nga xam ne moo di daal seen i ay liggéeykat ne daal lii euh, mbégte ak kontaante nag daal la si nag daal di am te nag daal dina xam ne ne li nga xam ne moo di daal ñaari oto yi benn bu si nekk nag dina jël lu si rek daal juróom benn fukk ak juróom si li nga xam ne moo di daal ay nit nag daal euh, dig na Gambia Immigration Department daal li nga xam ne moo di jokkoo dina nag daal gën a dox si diggante compagnie wala kër liggéeykaay bi ñu xamee si Asata ak Gambia Immigration Department ki ñu xamee si Sidi M nga xam ne moo yore kilifteefu Gambia immigration department di directeur général bi moom mi nag daal wone daal mbégteem kontaanteem nag li waral ñu nag daal jëndal li nga xam ne moo di oto yi seen i ay liggéeykat mooy nag pour rek daal yombalal leen seen nag li nga xam ne moo di daal dem ak dikk moom sax wax na ne bile yi nag daal njëlbeenu yoon li nga xam ne moo di kilifteefu kër googu nag daal daal di nag jëndal seen i ay liggéeykat li nga xam ne moo oto yoo xam ne dinañ leen yombalal nag seen nag dem ak nag daal dikka bi nga xamee ne wax na ne ñaari li nga xam ne moo di boosis yooyu benn bi nag dina daw diggante Banjul jàppa Katong benn bi nag dina daw diggante Banjul jàppa li nga xam ne moo di rek daal euh, Brikama pour rek yombalal ñi nga xam ne nag ñooy liggéey si li nga xam ne moo di Gambia Immigration Department seen i nag daal dem ak li nga xam ne moo di rek daal dikka fexe tamit ñu mun di nag daal jublu bu baax baax a baax si seen wàllu li nga xam ne moo di liggéey seen xel nag di mun a dal Fatou Demba yore na maltaka bi ñu xamee si commissioner of the passport panel wane na daal mbégteem ak kontaanteem jëmale ko si kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk Gambia immigration department ne daal lii nag daal kontaan na si nag daal bu baax a baax moom sax daal dina delloo njukkal ñi nga xam ne tamit ñoo di staff bi mu ne liggéeykat yi ne daal ñoom it nag daal kontaan na si ñoom gannaaw bi nga xamee ne oto yi nga xam ne moom lañ leen nag daal jëndal dina nag daal yombalal seen nag daal dem li nga xam ne bu ñu sukkandikoo rek si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom moom na wax na ne li nga xam ne moo di ñaari oto yi nga xam ne moom lañ jagleel seen ay liggéeykat nag daal eh, séentu na nag si liggéeykat yi nag daal ñoom it ñu mun a dalal seen xel di nag daal def seen liggéey ci anam yi nga xam ne noonu la nag daal di muccee li nga xam ne moo di ayib si rek daal xibaar gu nag daal mu gi mbootaay bi ñu xamee si Tech M Transformation Organisation ñoom nag daal ñoo doon amal li nga xam ne moo di ab jongante boo xam ne dañ ko jagleel li nga xam ne moo di xale yi nga xam ne ñoo toll si rek daal lower li nga xam ne moo di jongante bi nag dafa aju si wàllu lu ñu xamee si bi spelling wala spelling bi nga xam ne daal ab xeetu jongante la boo xam ne ñi nga xam ne ñoo di xale yi nga xam ne ñooy jàng kàllaama li nga xam ne moo di rek daal angale dañu am nag daal ab jongante boo xam dinañ ko def pour rek daal daal di nag daal dajare li nga xam ne moo di rek daal ay araf yi nga xam ne moo di angale euh, pour rek daal def ko li nga xam ne moo di rek daal baatu li nga xam ne moo di rek daal li nga xam ne moo di rek daal jongante yi nag daal li nga xam ne moo di xale yi nga xam ne ñoo toll si rek Lower Basic School ñoo ko doon nag daal di amal te nag daal li nga xam ne moo di ndaje euh, xeetu jongante bi at mu nekk nag lañ koy nag daal di amal li nga xam ne moo toll si fanweer si ñi nga xam ne ñoo di ay students wala ay taalibi nag daal ñoo doon nag daal di jongante jógee ko nag si fukk ak juróom li nga xam ne moo di ay schools wala ay jàngukaay yoo xam ne ñu ngi si biir li nga xam ne eh, moo di daal réew mi nga xamee ne ñu ngi ndar keppal li nga xam ne moo di daal jongante bi ki ñu xamee si rek Tunde moo nga xam ne moom sax mooy coordinateur yore nombal tànka bi ñu xamee si coordinateur si mbootaay bi ñu xamee si Tech M Transformation Organisation moom na wax na ne li waral nag ñuy amal xeetu jongante bi yi mooy nag pour rek daal fexe li nga xam ne moo di xale yi seen xarañteef si wàllu nag daal njàng ñu nag daal di ko fésal daal di ko nag daal di eh, feeñal gannaaw bi nga xamee ne wax na ne nga xam ne moo di xale yi bu ne daal ngi leen di jàngal dina tamit toll am tolluwaay boo xam ne eh, faaw nag daal ñu leen di boole si li nga xam ne moo di ay jongante yoo xam ne dina wane daal seen ab xarañteef si daal wàllu njàng mi nga xam ne moom la ñoo jàng Malam M Kouyaté principal education officer eh, si ministry of basic and secondary education moom nag daal dina wane li nga xam ne moo di xeetu jongante yi dafa nag daal di am solo surtout ñi nga xam ne ñoo di xale yi nga xam ne ñi ngi toll ci rek daal lower basic school gannaaw bi nga xam ne wax na ne xeetu jongante yi nag dafa wone li nga xam ne moo xale yi seen xarañteef si wàllu njàngam yi nga xam ne moom lañ leen di nag daal di jàngal gannaaw nga xam ne wax na ne dinay baax xale yi léeg ñu di leen boole ci rek daal ay jongante yoo xam dinañ fisal seen nag yi nga xam ne moom lañ nag jot a jànga si rek li nga xam ne moo di daal jàngukaay yi moom daal dina jaajëfal Mr Tunde ak daal ay naataangoom si nag daal amal bi nga xam ne moom lañ amal xeetu li nga xam ne moo rek daal jongante yi rek daal di wax ne li nga xam ne moo di xeetu jongante yi baax na lool si rek ñi nga xam ne rek ñoo di rek daal tuut ah, yi ah, ki ñu xamee si sii di ah, Camara bokk si student wala da xale yi nga xam ne ñoo doon jongante nga xam ne moom mu ngi si rek jàngukaay bi ñu xamee si Tankulaar Lower Basic School ki ñu xamee si Aïssa Diallo jógee ko si jàngukaay bi ñu xamee si rek long Longman Methodist Secure nga xam ne moom moo jël li nga xam ne moo di ñetteelu place bi euh, ki ñu xamee si Sidi Camara jël euh, njëlbeenu li nga xam ne moo di daal place bi ñoom ñaar yi wane nañ seen nag mbégte ak kontante Sidi Camara nga xam ne moom moo jël njëlbeen wala daal moom moo jël raw gàddu gi si rek daal li nga xam ne moo di jongante yi wane daal mbégteem ak kontantem ne daal Euh, mbégte la am gannaaw bi nga xamee ne lu toll si fanweeri ay student wala fanweeri taalibe daal yoo xam ne yoo doon jongante mu jël raw gàddu gi ne daal loolu nag daal mbégte la ak la si am ki ñu xamee si ay Aïssa Diallo jógee ko fi ñu xamee si Longman Methodist moom nag wane daal mbégteem kontanteem ne daal li waral mu kontaan sax mooy ki nga xam ne moo di way juram bu jigéen di yaayam moo ko doon nag daal gën a nag ñaax di ko bàkka ne ko nag daal fexeel nag daal indil ma li nga xam ne moo di ndam mu daal ñetteelu place bi nga xam ne moom la jël nag daal mbégte ak kontaante la si am te nag xam na ne ki nga xam ne moo di way juróom bu jigéen wala ndeyam dina si nag daal di kontaan moom ki ñu xamee euh, si rek daal Aïssa euh, euh, Diallo ko fiñ ñu xamee si rek daal Longman Methodist mbokk yi loolu mooy ndar keppa wala mooy jeexal seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi xaritu borom bi ak askanu Ibrahim Khalil Gueye moo leen ko doon jottaleel si kàllaama wolof jaajëfal leen si uh, seetaan bi ak uh, déglu bi jaajëfal ñi jàppoon si xibaar yi ba mun a sotti jaa ngeen jëf